waaw d'accord ma ne Babacar Touré bu rusul di ma wutee ay euh, ay vues. Mm-hmm. di toog ci télé yi di wax bu rusul di toog ci caméra am di wax. Mm-hmm. te xam ne mu lu muy wax mu leer lu ko ne lu muy wax du dëgg. dëgg la man euh, du ma ruus a toog jàkkaarloo woon Sénégalais yi fenkat la. tata mm-hmm. nit ku nekk am nga droit fi nga dëkk. fekkee ne fi ma dëkk ñoom situation bi ma nekkee ñoom ma ko yóbbee. Mhm. man mënuma yàgg fenn. Mhm. ma yàgg si benn quartier parce que tellement ko maa ngi tiit fu ndax ma maa ngi maa ngi toog maa ngi toog maa ngi tiit su ma fi yàggee ñoom kenn mun na maa xàmmee dem wax leen ko ñu ñëw rey ma. Mhm. situation bi ma nekkee ñoom ma ko yóbbee. kon sama tox warul warul warul jaaxal kenn. dëgg la partagé leen mu war dëgg la man damaa mais toxu boobu noonu c'est pas que damaa daw fi ma nekkoon. Mm-hmm. ñun ñoo toog ba xam ne fii mu nekk ñu fee rek ñu jóg fa dem suñuy yoon. amatul sécurité. amatul sécurité ñu jóg c'est normal. waaw nee na man dama dëkkoon ci kër eh, sama maître. maître El Hadj Diouf on sent que c'est maître El Hadj Diouf. dëkk kër maître. mais je sais. xam naa mosuma dëkk kër maître. maître El Hadj Diouf mosuma dëkk këram. ci fanaan ko la dëkk fanaan kër kër kër kër kër El Hadj. ndeysaan. gis nga lii Babacar yéen sax mosuma koo def kër jox ma nopp bu baax bi comme ça à partir d'aujourd'hui tu arrêtes tes mensonges s'il te plaît épargne le Sénégalais de tes mensonges Adji vas-y. franchement nag nu mu wax dafa bëri xam naa ne boo ma jàppale wal tellement que duma xam li ma li ma li ma war a wax mais surtout dégg naa mu wax fi ne maak euh, sama avocat maître El Hadj dañu xuloo <laughs> waaw loolu la war. parce que dama la parce que dama la dama damaa war ni ñu koy waxee. dama remercier dama laa gërëm. waaw. mais man su ma la gërëmee d'une part hélas moo ma yokk fit moo ma ne waxal. très bien parce que man j'aime pas di ma gis wala j'aime pas parler pour euh, surtout en que lépp lu ma wax day retourné retourné waat compte man dañ ma ciy bëgg di mais maître El Hadj man ne képp ku la defal teraanga danga koy wax. ndax gor la ku baax la moom. moo ma moo waaw ma ko wax. Mm-hmm. mosuma xuloog moom. Mm-hmm. mosu mosu mosuma xoolee bët boo xamante ne man sentir naa ne kii am na lu ma loo xamante ne sentir naa damay sentir ne am na kii am na lu ma jàppal. Mm-hmm. mais dafa nekk nit koo xamante ne nit ku baax la. di ma jàppale lakk nañ fi këram. dëgg la. njabootam tasaaroo. muy muy muy muy tëb. muy def lu nekk pour teral njabootam di def lu nekk pour am fu mu dugal njabootam. Mm-hmm. te loolu yëpp man maa tax. dëgg la loolu yëpp man maa tax te loolu mosul tax mu xoolee maa bët boo xamante ne bët bu ñaaw la daal. Mm-hmm. kon côté boobu man man maa ngi koy remercier bu baax sama avocat la maa ngi koy remercier yàlla ko yàlla dafa jàmm. Mm-hmm. mosuma ko loog moom mosuñu am problème. amiin chaque jour mu may woo chaque jour mu may defal teral nit ku baax la. chaque jour mu may teral lépp lu ma soxla moom ma koy defal. Mhm, kon man su ma ko remercié wul duma ko indil benn ay. Mhm. le cadre nag yi naan dama feebar wala feebaruma. moom laa la bëggoon laaj euh, dama feebar. waaw comment tu te moo ma yëgal ne dama feebar. <laughs> kon moom moo la yëgal ni yow da ngaa feebar. mais moom moo ma yëgal ne damaa feebar. mosuma ko yëgal amaana ko ñoom ñu yaa ñu yéene ma ko bu fekkee moom daf ma koo yéene. Babacar Touré man naa Babacar Touré man comprendre ma ko fait man xawuma ko xamaanuma ko il faut que mu arrêté di ma fenal parce que trop c'est trop na ma arrêté na arrêté. phénomène deuxième chose bi nag mooy médiation bu muy wax. Mm-hmm. médiation bi. médiation bi. Mm-hmm. mais nag bettuma euh, bettuma ko mu koy défendre. Mm-hmm. xam lan moo tax ba li mu wax ni yëpp méttiwu ma. Mm-hmm. parce que ka muy défendre a tax. Mm-hmm. damay naan ñoom ñoo yem. kon moom moom ak ki muy défendre ñoo bokk. ñoo bokk mbuus quoi. waay. lan la tubaab wax. qui se ressemble s'assemble. mais loolu sax duma ci wax. Mm. parce que nekkuma fi di wax ci keneen man li ma fi tey bu ma duggee ci direct bi c'est pour dire les sénégalais que maa ngi ci jàmm. que tu es en bonne santé partagez les live ce matin dara dara dara jotuma maa ngi si jàmm feebaruma aw ma benn problème ak ñi nga xamante ñoom naa lekkati suñu waa kër laa nekkat. Mhm. Mhm. il faut ñi arrêté. Mhm. léegi euh, tu as vu que euh, récemment aussi. Euh, y a des militants Ousmane Sonko moom mi Babacar Touré ci la bokk di la tendre la main di def comme si yow dañ la bëgg a jàppale dañ la bëgg a dimbale que yow euh, l'état t'a failli état toppatoowu la ñi la war a encadré jàppale wu ñu la kenn dimbaliwu la tu es laissé à toi-même ba ñoom ñoom ñooy ñëw nee na dañ lay sauver yow loolu noo ko gisee est-ce que loolu jaaxalu la yow. waxaatal waxaatal Tata li nga wax nii dama <laughs> dama ne temps yi da nga gis ay ay nitu Ousmane Sonko ay ay jigéenu mhm. Ousmane Sonko ay doomu aadama yoo xam ni Ousmane wane mus nañu mhm. taxaw saaga la yow taxaw jëm mhm. la tawaxal jëm la néewal doole ñoo doon jéem a néewal doole ci réseau yi ñooy wëlbatiku di la jox di la tàllal loxo ne ñëwal waaw parce que suñu doom doomu askan wi la dañ lay jàppale dañuy mën dañ lay defal dañ lay dañ lay dimbali quoi comme comme quoi ñoom daal ñoom ñooy actuellement ñi lay sauver yow loolu est-ce que am na ci yaakaar gëm nga ni dëgg la ci ñoom lu maanaam lu dëgg la daal ci ñoom. mais tata man maa ngi ci jàmm soxlawuma ndimbalu kenn ndimbalu yàlla. mettez du cœur. ndimbalu yàlla rek man yàlla may jàppale. Mhm. man maa ngi si jàmm leen kese laa soxla bu fekkee ni ñëpp a ngi naan nag ma ndimbal ñoom ndimbal lañ may laaj. Mhm. dañ maa bëgg a dimbali ñoom. nañ dem wax seen leader mu taxaw ñu def lépp projet am ñu àtte ma moom. man lépp ku képp ku ma jàppale na dox si loolu bu fekkee bëgg na ma jàppale soxlaw ma xaalis soxlaw ma dara képp ku ma bëgg a jàppale nañ ma nañ dox ci loolu noonu. Mm-hmm. kese. léegi nag euh, lenn laay wax tata. Mm-hmm. mooy képp ku ma bëgg a jàppale na wax na doxe pour procès am ñu àtte ma sénégalais mën a xam man fan laa féete man mën a xam fan laa féete sénégalais yi mën a xam dëgg bi. Mm-hmm. ndax man sonn naa sonn naa ci fen yi sonn naa ci lépp mm-hmm. sonn naa ci menaces yi aussi sonn naa si mm-hmm. sonn naa si lépp mais tata waxtaan bi du guddi mm-hmm. amul problème ndax dama sonn waaw wax bi wax bi dafa métti du ñëpp euh, wax te je pense que l'essentiel moo nekkoon yow Adji pour que nga ñëw wax sénégalais ni que tu es là tu es en bonne santé tu en euh, ba may wax ak yow sànq ba may waxtaan ak yow Euh, sànq jot naa nuyonteeg maître El Hadj mu ngi yaa leen toog waxtaan euh, ak ñëpp ah. maa ngi sentir ni qu'il y avait d'autres mm-hmm. yaa ngi nekk ci jàmm y' a aucune tension mm-hmm. y' a aucune dara amul sama diggante maître El Hadj Diouf dara amul sa diggante maître El Hadj Diouf ci mm-hmm. baaxaayam daa ñëwoon juste xool ma ak ni ma dundee situation bi daa foogoon ne damay nekk di di ah daf ma seet si ndeysaan daf ma seet si woon pour xool nan laay dundee macha allah maa ngi ko euh, mu ngi wax Babacar Touré moom joxal joxal Sénégalais yi maître euh, message bi nga xam ne maître moom la joxe sànq. moom la wax nga transmettre dafa ne dans les dans les jours à xaw ma day def euh, live euh, ak yow xaw ma. Mm-hmm. nee na dina génn dina def une sortie pour remettre les pendules à l'heure et en plus annoncer la plainte bi nga xam ne dina ko def contre Babacar Touré. parce que trop c'est trop maître El Hadj Diouf a laissé passer très beaucoup de choses. Mais comme Babacar Touré s'acharne à continuer à calomnier, à diffamer, à salir euh, un honorable citoyen, un avocat qui plus est, génn euh, moom dina jël toutes les mesures très bientôt te dina génn jàkkaarloog Sénégalais yi pour que mu leeral euh, wax yu bëri euh, pour mu leeral digganteem ak Babacar Touré nga xam ne pour sa survie personnelle il est prêt à jeter tout le monde sous le bus y compris une jeune fille de vingt ans présumé violée, victime de viol, qui cherche rien d'autre qu'à avoir un procès et qu'elle puisse vivre en paix le restant de sa vie. Aji maa ngi lay libéré di la wax nga. maa ngi lay remercier Tata Hélène. Mm-hmm, ñoo ko bokk ma fi koy waxee ma di remercier waa CODAS di remercier képp kuy jàppale Aji. merci ma fille. di waxaat aussi une dernière fois képp ku ma bëgg a jàppale na nga doxee waxee pour ñu jàppale ma ak moom pour ñu def projet. ndax soxla naa ko loolu kese laa soxla wax ji yëpp soxlawu ma ko. Mm-hmm. Tata yaa 14 mm-hmm. mois. yoo xamante ne tey ku nekk am na ñoo xamante ne mun nañ nekk sama mag ñii mun nañ nekk samay rak. Mm-hmm. kon du leen noonu bu fekkee ne maa tooñ Tata. nañ ñaanal yàlla na fi yàlla bàyyi. merci ma fille. excellente soirée à toi yàlla def Sénégal parce que on n'a pas besoin de ça Sénégal soxlawul lii. Sénégal soxlawul lii. léegi. Euh, maa ngi jégalu bu fekkee ne waxee naa loo xamante ne waruma ko woon waxee nit rek laa te mënuma sax wax. mais mu la daal loo xam ne mënul woon ñàkk bu sénégalais xam ne dara daluma. merci beaucoup